Euh, Abdoulaye Daouda n'a pas été choisi malgré que c'était difficile moi je faisais partie des premier qui lui ont dit qu'on va aller aux élections ak ñeneen ah je man maa toog fii moo tax may wax parce que keneen bu ñëwee mën naa waxal boppam. mais lépp yow la non non non damay déglu non dama lay wax li ma lay wax nii may mën a président de la république toog na recevoir ñu il y deux jours mo trois ma ne ko man président bokk naa ci ñi nga xam ne bi Ablaye d kenn choisir ko ma ne ko nañu dem élection lu ñu yàlla jox ñu jël est-ce que yaa ngi dégg baax li ma la président de la république Macky Sall il y deux jours wax naa ko loolu parce que man Abdou Mbow comme ni ma la ko waxee nga baal ma sax maa ngi wax man man parce que maa fi nekk lu ma xalaat. dama koy wax. Ah, lu ma nekk léegi de défier Macky Sall yow. non ma xoolal man Macky Sall waa déglu ma non kaay ma wax la. Macky Sall toi tu n'as jamais eu d'avis personnel. non non tu as toujours défendu les avis les convictions de Macky ma moo tax. ba ma ko xamee ba tey waa déglu ma ba ma ko xamee ba tey. mais nous on te côtoie depuis une quinzaine d'années non déglu ma déglu ma déglu ma Macky Sall ba ma ko xamee ba tey. ba ma ko xamee ba tey saa bu dara amee. wax naa ko sama xalaat. mais man nag ku mu dàq ànd nga ci. waaw mais c'est que nag aussi Maymuna da ngay déglu ku mu fal ànd nga ci Maymuna. yow Thiès sax Macky Sall bàyyi na la fal ay ñu mu warul woon fal nga ànd ci nangul ko ko. mais parce que. Macky Sall neex naa défier léegi parce que man kilifa laa boo xam ne su ma nekkee ak sama kilifa la ma ko war a wax su ma toogee moom dama ko koy wax damaa bokkul ak ñi nga xam ne dañuy dugg ci biir ne waaw génn di jëw yana énormément man président Macky Sall suñ toogee en secrétariat damay wax sama xalaat suñ toogee man ak moom ma wax ko sama xalaat mais sama kilifa la sur le plan politique su ma génnee je défends toutes ses positions may mun a Sénégal yépp xam nañ ne sama diggante ak président Macky Sall du diggante sax militant ak responsable diggante mag ak rakk la parce que dama ko jàpp comme mag man bi may takk jabar j'étais dans l'opposition président Macky Sall jóge na Ndar parce que c'était le 9 avril maamu Marème Faye décédé mooy ki jur yaayam le président et parti aux obsèques mën naa ne balaa kaamil bi jeex fekk ma war a takk jabar la samedi c'était un vendredi la gaañu ñu entere ko samedi di wàcce kaamir bi avant boobu jóge na Ndar ànd ak ñoom Mahmoud Saleh ñoom mbay Ndiaye ñoom Augustin Tine ñoom Talla Sylla ñoom ñëpp jóge foofu directement il sont venus à Grand ci sama mariage pour te dire que sama relation ak moom dépassé na diggante responsable ak militant mais en politique man Abdou Mbow képp koo xam ne sama kilifa nga ci dama lay wax li nga xamante ni. mooy sama xalaat j'ai écrit un livre xaaral da nga ne Macky moo ne ci livre am xam nga xam nga Macky xam nga Abdou bu ñu defee euh, une rétrospective. oui de tes prises de position de tes postures politiques. et je les assume. ah je les assume man gis. fu Macky Sall jëlee décision. Mm-hmm. nga dem à l'encontre bii xam nga la. xaaral nga dem à l'encontre de cette décision. waaw mais déglu déglu à te yow bokk nga ci ñi nga xam ne. nit ñi dañu jàpp ne. Euh, ci doomu Macky Sall yi nga bokk Macky Sall moo ne. Uh-huh. dans le livre. Uh-huh. qu'il a préfacé. itinéraire d'un député au cœur de la République. Uh-huh. mu ne pour ce faire. l'auteur s'appuie sur quelques séquences repères dont celle de la naissance de notre parti l'Alliance pour la République. dont il est membre fondateur. Mmh. Il fut en effet parmi les premiers à oser avec moi cette aventure faite d'endurance face aux péripéties jalonnées d'obstacles. Oh, je perds mon truc là. Face aux péripéties. Non, non, non, non, je préfère prendre ça ici. <laughs> <laughs> face aux péripéties jalonnées d'obstacles, de peines, de sacrifices sur le chemin souvent improbable de la victoire. Pour résumer, c'est-à-dire, yow man mosuma xalaat ne dans ta dans ton engagement militant Macky Sall dina jël décision ñi ñëw barki démb sax comme tu dis euh, ne ko président Gongo les barons ne ko président Gongo yow nga jël posture contraire c'est pas grave vous aviez le droit de candidater président tànn ñu bari ñu ne Macky Sall wóolu nañu sa tànneef wóolu nañu sa vision ndax boobaak léegi yoon bi ñu joxoñ yoon boo ñu joxoñ mooy yoon bi baax ci ñun mm-hmm. ñoo ñooñu Macky Sall seen genre sëriñ la mm-hmm. yow mii nga bokkoon ci taalibe yooyu mm-hmm. mais yow nga génn nga ne ko d'accord ñu xanaa xamoo Ablaye Daouda beaucoup de beaucoup d'observateurs savaient que Ablaye Daouda du dem mais ah, des gens comme yow des gens comme yow. Mhm. yéen a bëggoon rompre le de compagnonnage entre Macky Sall et Ablaye Ba. Ah, léegi ma wax benn affaire xam nga da ngay wax ne taalibe man Macky Sall sama sëriñ sëriñ Mbaye Sy mooy sama sëriñ Macky Sall c'est mon leader nekk sama mag mais xam nga Maïmouna euh, j'ai dit au président de la République man ko monsieur le président candidat président kenn du ko tànnal kenn. ndax moom bi nga xamante ne nii dafa bëgg nekk président man Abdou Mbow maa ko tànnal sama bopp ministre Aliou Sow. donc yow lépp sauf loolu. déglu ma rek ministre Aliou Sow moo ma présenté Macky ñu ànd moom mu dem ba jàpp ne war na dem continuer ànd ak Abdoulaye Wade parce que am na compagnonnage boo xam ne loolu nag ma nangul ko ko ma toog man Macky Sall ak yàlla ne ko à partir d'aujourd'hui dans son salon. mën nga konte ci man te boobaak léegi lépp loo xamante ne nii Macky Sall jàpp naa ne war naa ko def sama diggante ak moom mën naa bañ a def lépp de mais jàpp naa ne li ma war a def def naa ko maintenant ñu dem ba benn moment mu ne moom nekkatul candidat à l'élection présidentielle waaw mais may mun a man ma toog secrétariat wax ko sama xalaat nekk ci li ma nekk jàpp ne Ablaye Daouda mooy ki nga xamante ni jàpp naa ne mooy candidat bi gën jàpp ne Ablaye Daouda war nañoo mën a fexe mu doon le choix du président Macky ñu def ci lu ñu mën parce que depuis le 6 juillet képp koo xam ne jàpp nañ ne war nañu mën a waxtaan ak yow recevoir nañ la di waxtaan ak nit ñi ñu ay ay ay ay comme ni ma la ko wax ay responsable ñi nekk ci parti bi ñi nekk ci coalition bi ay personnalité Euh, de la société civile ñoo xam ne jóge nañ à l'intérieur du pays mais ñu nekk di liggéey pendant deux mois yoo xamante ne ni ñi ngi travailler sur un projet pour que Ablaye Daouda nekk candidat mais suñu demee ba président de la République jàpp ne moom lii moo gën par rapport ak consultation yi ma def mu def son choix mais est-ce que ñun amuñu la latitude d'apprécier c'est un candidat à l'élection présidentielle la preuve dama gën a naw ab Abdoulaye Daouda Diallo xam nga ci lan ci la posture bu mu am xam nga mooy lan mooy bi mbir mi amee la preuve boo seetloo amul kenn koo xamante ni ànd naa moom mu wax dafa dajale ses collaborateur ne leen pour le moment je préfère que personne ne prononce sur cette question ñu continuer à travailler sur nos notre projet di waxtaan di continuer suñu consultation di xool ñi nga xamante ni loolu la ñu xalaat ne moom la ñu war a def ñu nekk ci loolu ku ci nekk di ci wax sa xalaat ñu nekk di ci liggéey mais loolu c'est un projet boo xamante ni on a travaillé autour d'un projet pour porter la candidature de Abdoulaye Daouda Diallo à la candidature à l'élection présidentielle mais on a vu que la mayonnaise a ñu gis ne nit ñi ñu ngi koy jàppale ñu gis ne am na carrière bi pour porter la candidature de Benno Bokk Yaakaar mais bu ñu demee ba ñu tànn ñu ne tànn ñu Abdoulaye Daouda Diallo mais am nañ sañ-sañ toog waxtaan parce que comme ni ma la ko waxee président de la république c'est pas parce que dañ koy bañ a déedéet président bañalu ko dara président lépp loo xamante ni bëgg na ko diggante 2008 ak léegi ñu ngi ci bien que nag dañ koy wax li nga xamante ni mooy suñu xalaat xam nga ce qui disent que Ablaye Daouda Diallo way xamoon nañ ne c'est parce que xamuñu Ablaye Daouda Diallo Ablaye Daouda Diallo est un homme d'honneur est un homme d'éthique et c'est un homme qui a montré que c'est un homme d'état moo tax ñu ba pare mais déglu ma non non non ma déglu ma ba pare ses relations avec le président de la République dafa doon des relation yoo xamante ni dépassé na ay relations politiques le président n'a jamais appelé Abdoulaye Daouda Diallo par ay ministre nangam wala président Abdoulaye rek la koy wax et loolu c'est affectueusement maintenant c'est pourquoi beaucoup de gens ont voulu dire que ay choix de cœur nangam nangam non moi je refuse cela pourquoi parce que Abdoulaye Daouda Diallo comme ni ma la ko waxee sur le plan sur tous les plans mooy politique électorale compétence ak carrure ak taxawaay amul dara loo xamante ni tey war nañ ko mën a wax ci moom. pour wax ne non c'est un choix de cœur non loolu. c'est parce que c'est relation privilégiée avec le président moom la nit ñi di jiital. mais c'est quelqu'un qui a montré ses preuves pour wax ne war na mën a taxaw pour laaj baatu.